kan mooy Cheikh omar Anne directeur COUD la woon waaye bokk na ci gouvernement bi nga xamante ne daanu na bu Macky Sall lan la def lan moo tax ñu épinglé ko ci yan circonstances lañ ko jàppee moom Cheikh omar Anne waaye nag balaa ñuy sori ci loolee dañ leen di dégtal benn audio bu am solo boo xam ne képp ku ko topp aimé ko partagé ko di nga xam Cheikh Oumar Anne ci boppam bokk na ci ñi nga xamantene rapport bi wala fiir gi japp na len ginaaw bi nga xamantene Bassirou Diomaye Diakhar Faye di président du Sénégal jox na ndigal nak IGE ak Cour des comptes ak bépp contrôle corps de contrôle du moins bo xamantene nek na ci réewum Sénégal ñu def publication immédiate bépp rapport bo xamne defon nañ ko depuis 2021, ba 2024 mille mbokk yi tewlu audio bi del si commenter leen actualité bi. dañ koy njëkkee ci rapport yi nga xamante ni lof nag génne na ko mu ñeel ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Anne Cheikh Omar Anne Cheikh Omar Anne nag moom xam ngeen ne nekkoon na fi directeur du kudd moom mi nag dossier am lu ñeel ci wàllum kudd googu noonu lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay mbir eh, épinglé nañ ko fa ñeel rapport bi génn ci waa OFNAC ba ci njëkk rek mooy mënees nañ ko wax ne ko muy Osprey si. concours hippique euh, mooy maanaam loolu bu ngeen ko déggee mooy maanaam dañ ko doon sponsorisé di ko tuddee lu mel ni ay làmb wala ay football wala ay dawul fas course yooyu noonu daal dañ ko ko tuddee nag nee na yëkkati na lu toll ci vingt million francs CFA ci suñuy koppar daal di ko cay def yemul ci loolu muy waykat boobu di daw di Ndiaye Mbengue Doudou Ndiaye Mbengue Doudou Ndiaye Mbengue moom amoon na benn soirée bu organisé woon moom nag waykatu président de la république Macky Sall soirée boobu noonu mu fa organisé woon nag nee nañu biñ ko fa woowee yëkkati nañ toll ci ñetti millions francs CFA ci suñuy koppar daal ko cay def yamul ci loolu beneen bu ñuy wax ndogu kuldu maanaam ndogu la loo xamante ni ñu ko organisé woon misaal ñu woo ko ca mu yëkkati fukki millions ak juróom ci suñuy beneen bi tamit mooy sommet de la qualité à New York bi amee foofu ca New York nee na def na ca lu toll ci neuf millions huit cent soixante huit mille quatre vingt cinq francs CFA ci suñu koppar. ba tey moom Cheikh Omar Anne yemul ci loolu nee na maanaam defar gi nga xamante ni moom la doon defaraat bureau bi muy liggéeyee def na ca lu toll ci trente huit millions trois cent cinquante trois mille quatre vingt dix francs CFA. trente huit millions cinq cent euh, trois cent cinquante trois mille quatre vingt dix francs CFA moom la def ci li nga xamante ni moom la lool euh, defaraatee bureau ak yu ba tey lu toll ci cent cinquante cinq personnes yoo xamante ni recruté na leen ñu dëkk foofu ci Ndioum fa dëkk moom ñoo xamante ni tamit quatre vingt cinq yi maanaam amuñu li nga xamante ni moom mooy liggéey maanaam jël nañ leen di leen fay waaye liggéeyuñ loolu tamit ba tey euh, of nag. Euh, dóor na ko ci li nga xamante ni moom mooy rapport beneen bi tamit mooy euh, matériel réforme yi nga xamante ni moom la doon jëfandikoo foofu ci kudd nee na jënd na lu toll ci cent vingt quatre millions francs CFA ci suñuy koppar beneen tamit mooy faux li usage et mooy li maanaam jamonoy Covid 19 bi ba fa président de la république ba fi newoon Macky demoon di ko seeti na ca nee na lu ci quatre vingt neuf millions francs CFA ci suñuy koppar am na tamit ay suspension irrégulier yoo xamante mu ne su ko ñu souscrié yooyu nag mu ngi toll ci cinq cent millions franc CFA ci suñu koppar waaye tamit nee lu toll ci cinq litres de carburant moom la doon utiliser par fukki weer maanaam fukki weer yi daanaka ña eh, at mi ñaari weer ci manqué loolu lay utiliser ci carburant muy cinq litres bu carburant moom mi nga xamante ne moom Cheikh Omar Anne bu kudd nee na tamit yëkkati na lu toll ci ñetti millions franc CFA ci suñuy koppar joxe ko ay kado kado yi waxuñ ñu fan ak fan la kan ak kan lañ ko joxe amoon na tamit ab liggéey boo xamante ni moom la doon deflu yëkkati na lu toll ci sept million franc CFA ci suñuy koppar joxe ko li nga xamante ni moom mooy fonds te liggéey ba ba léegi farax daal xëndeen kenn mëntu koo euh, maanaam kenn mënutu koo gis ci biir avion lim ñàkk nee na ci lim ci financé def na ci deux millions six cent mille franc CFA ci suñuy koppar waaye tamit euh, li nga xamante ni moom mooy euh, mbirum interview amaloon na benn interview ci sept minutes interview boo xamante daal sept minutes la jiite képp ñàkk na ci lu toll ci trois cent vingt sept mille cinq cent franc CFA ci suñuy koppar pour vidéo ba génn nag ñàkk na ci lu tollu ci deux cent soixante deux mille franc CFA ngir vidéo mën a génn beneen bi tamit mooy mi doon na utiliser li mu ci ay kay kale UGB mi ngi tolloon ci cent trente mille franc CFA ci suñuy koppar loolu lépp nag buñ ko xaymaa ba boole ko muy doole doole ci. bi muy euh, defaraat li nga xamante ni moom mooy bureau bi ak lépp lépp lépp lépp. rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne préférée seen njëriñ TV kàddu yooyu nag ñu leen dégtal muy kàddu yu am solo waaye kàddu yoo xam ne boo ko déggee di sénégalais dangay tiit waaye da ngay jommi waaye da xam ne gouvernement bu Sénégal bu fi nekkoon sonal nañu askan bi alal ju bari joo xamante ne ñoom moomuñu ko alalu askan bi la ñu saax saaxe ko def ci lu leen neex te mujjul fenn. bureau bo xamné dañ ko réfectionné wat défarat ko plus de 30 millions CFA ci xaalisu réew mon Cheikh Omar an ci ancien DG du kudd mom lolo la def nga xamné ay tuuxi donné yu raw yi nga xamante ne la nit ñi di xaar def nako ko mom mo ci gëna touti amna ci ko buñ ci Abdoulaye ak ñi nga xamante te ñoo seqoon wàllum Covid Mansour Faye ak seeni daaj ak Diop si ñi tudd ñëpp ci mbirum Covid plus de mille milliards yoo xamante ne ci jamono jooju ñu ngi tëj Sénégal yi ci couvre-feu ku génn ñu duma la waaye tëj la indi la ay jafe-jafe ba yow mi nga xamante ne sénégalais nga amatoo woon droit génn amatoo woon droit liggéey soo naajee wala nga nga nga tardé rek ci réew mi yow am nga jafe-jafe sénégalais yi nag. jàpp naa justice rek la ñuy demandé ak gouvernement bu bees bi nga xamante ne moo justice pour sénégalais yi nga xamante ne tëjoon nañ leen ci jamonoy Covid waaye justice pour sénégalais yi ñu rey ak sénégalais yi ñu teg leen injustice ba sénégalais yi ci boppam ci jamono yi Macky Sall depuis deux mille vingt et un quatre ans deux mille vingt quatre ñeenti at yooyu sénégalais yi li ñu dund ci. trox tangé ci sonal len ci bundu xatal len ba kenn amatul kaddu goy wax dudu Ousmane Sonko wala sax budu won Ousmane Sonko mi nga xamantene moy leader parti passif tay di di premier ministre du Sénégal pour won mom lambay ñaaw ndax mom mo jamarlo jakarlo Macky Sall ak armem waye jakarlo Macky Sall ak policier ak magistrat yi ak ministre yi nga xam dañoo bokk ci gouvernement Macky Sall ak rawatina journaliste yi nga xamante ne ay journaliste alimentaire lañ di génnee ay xibaar yoo xam ne dara leeru ci xibaar yoo xamante ne ay fausse information la di jalgati ngir rek suuxat wala sax indil jafe-jafe Ousmane Sonko ndax xamoon nañ ne bu jotee nguur gi waxuma la règlement de compte ndax du ko def waaye justice dana am justice boobu nag la ñu bëgg mu tëddee njaaxaanaay jubóole askan bi ak ak ak ak ak boppam ci boppam ndax justice ci boppam moo tooñ boppam ndax ñoom ñi nga xam ne ay magistrat la ñu ci ëpp dañu toog seetaan jamono boobu seen mbokki magistrat ji jalgati kenn ku ci wala ñu ñu nor ñoo mënoon génn di wax wala sax bu amee ñu génn ñenn ñi défendre seen bopp mooy ñi nga xamante dañ leen fi ngir Sénégal ku ci mel ne Saba si fay ak Racine Thion nga xamante ne gis nañu biñ leen indilee dossier bi nga xamante mooy dossier Ousmane Sonko lañ ca def defuñu ko ngir Ousmane Sonko way dañ ko def ngir ñom ci bopam lolé lañ jang té loolu lañ wara tari ndax ñom bañuy jang xamuñu Macky Sall bañuy am seen diplôme xamuñu ko waaye bañuy ñuy seen réew Sénégal mo leen taxoon juk ak tamit bayyi xel li nga moy réew ak seen diggante ak seen borom loolu nag jàpp naa ne mooy li waroon képp koo xamante magistrat nga wala képp koo xamante ci justice nga nekk di liggéeyal di bàyyi xel sa digganteeg suñu borom waaye di bàyyi xel sa digganteeg say morom waaye di bàyyi xel askan bi nga xamante ne lépp looy fayeeku ñoom ñoo tax yow ci sa bopp yaay seen di naan yaay seen jaam yaa leen di liggéeyal yaa leen di ngir mën am seen ngërëm loolee nag bu fekkoon ñëpp noonu la def kon Sénégal day neex am tawféex te kenn du bëgg génn Sénégal ñi ngi ñaan daal justice bu Sénégal ak ci ndiital Bassirou Diomaye Diakhar Faye premier ministre Ousmane Sonko ni ñu doore ngir rek lépp leer ñu def ko ci tey ak seen tey sago waaye nag ànd ko mu leer ba képp kuñ ciy daan Sénégal yi xam ne ñii def ñu règlement de compte waaye dañu bàyyi justice justice boobee def yoonam.